asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul mun taxa ñu ko doon waxee sànq li ñu tax a daje fii tey mu bokk ci liggéeyu daaira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoom la Cheikh Mouhamadul taxa dénk lu aj ci jumaa ji eh, ak yeneen liggéey yi nga xam ne dénk nañ ci biir liggéey boobu nag daaira Muxaddamatul Xidma xam ngeen ne fii ci jumaa ji mooy barab bi nga xam ne ci biir Touba fii la ay nit ñi ëpp daje di fi daje moo xam événement la moo xam ajuma yi ak lu mën a doon loolu tax ci biir jumaa ji am na benn fajukaay bu fi nekk boo xam ne dafay soxla woo ay jumtuwaay yu bëree bëree bëri li muy soxla woo ci jumtuwaay bëri na doonte euh, borom pharmacie yi ci région bi ñu ngi ciy jàpp bu baax district bi di ci jàpp loolu tax na daayira bi ci boppam léeg-léeg danay génne ci gafakaam di jënd ay garab ngir fii ku fii faju soo nappee ñu mën laa jox ay garab te doo ci fere dara loolu nag tax na ci njàppandaluk district bi ak ñoom sëñ Abdou Lahad Faye ñi ñi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal liggéey bi euh, ñoom ñëpp kenn ku nekk dangay jaar fenn ngir luy mën a jagal barab bi <coughs> tax na it daayira bi it euh, léeg-léeg dafay wut ay solution ngir ay garab di am ak ay mbir tax na nag ci biir liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def tukki bi nga xam ne defoon naa ko itali ci ndigalul daayira Muxaddamatul Xidma biñ demee Toscana ci Pisa ci ñoom sëñ Ibrahima Sey mii ak sëñ Xaali Jaañ ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkal daayira Muxaddamatul Xidma eh, ca Toscana te jëwrin yi Toscana yi jox leen ci ndigal ngir fuñ mën a dem ci mbooloo yi ak màggal yi di mën a leeral liggéey bi te sëñ Mass Thiam mi ngi nii teew fi teewal leen fi ak jëwrin yi fi teew yëpp wuutu fi yeneen jëwrin yi nga xam ne ñëwuñ eh, ñu jaar ko nag ci koo xam ne xaritu suñu xaalis la nii ñu koy wax sëriñ Ibrahima Dieng mu doon koo xam ne yàlla dogal na am nag jaxasoo ak tubaab yi lool loolu nag ku xam Toscana xam ne yàgg nañoo amuk jaxasoo ak tubaab yi waaw ndax euh, euh, xam nañ xëy na seen engagement ci dëkk bañ nekk tax na tubaab yi bàyyi nañ leen xel ay matériels yu bëri mu koy indi ci Sénégal bi nga xamee ne waxtaan nañu moom nag ci wàllu district bi ci jumaa ji mu dox ci ak tubaab bi mu ciy lëkkalool euh, ñu indi ci valeuru garab yi toll nii doon naa ko leeral léegi romb na daanaka cent million xam ne ñoom docteur yi bi ñu ko xoolee nee nañ am na ci ay garab yoo xam ne buñ ko doon jënd fii seer lay doon waxuma li ci district bi di jariñoo waaye li nga xam ne yeneen hôpitaux yi wala yeneen fajukaay yi ci dëkk bi mën nañ cee jariñu rek kenn xamul nu mu toll loolu nag kon day sest bu am solo day jëf ju rëy day xitma bu am solo rawatina jamono yi ñu toll nga xam ne gis ngeen ne dëkk bi nawet bi ak mbënd mi ni mu fi demee nga xam ne laaj nañ ñu yokk ay taxawaay bu baax ci wàllu faj mi kon su fekkee daayira Moukhaddamatoul ma ñëw na apporter lii mu jëm ci fajukaay bi tamit man cee sédd hôpitaux yi ak district bi loolu it lu ama am solo la loo xam ne eh, jaaru na kon ñu sant ñi nga xam ne ñoo taxawu liggéey bi muy jëwriñu toskaane yi jaarale ko ci eh, sëriñ Ibrahima Seye ak sëñ Xaadi waaye sëñ Ibrahima jeng moom it ñu ngi koy gën a sant di ko ñaanal ak partenaires yi nga xam ne ñoom lay lëkkalool sunu borom gën leen a man loo li ñuy def ba lu mel nii gën a mën a am yaakaar naa ne Touba lim soxla ci wàllu googu bëri na. Hmm. bëri na lool lool kon ñi loolu yi ñu ngi ciy gën a tàllal loxo bu baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm ndax fii nag ku fi liggéey moom Sëñ Touba fay la ndax jumaa ji kat indi fi dara yombut maanaam lu fi waaye mën a dugal rek xamal ne lu sell la maanaa dugal fi sa alal mën ngaa am ay milliards te doo ko fi man a am sëñ bi rek mooy daak mooy nangu jëf jëfi kon ki nga xam ne moo fi dugg dugg fi kon loolu tawfeex la ju rëy rëy kon li ci ñi nga xam ne ñoo doon chargé conteneur bi ak ñi nga xam ne ñoo jëfoon ci li ko paasal mu ñëw euh, ñoom sëñ Daaru Touré sëñ Assane Diop ñoom ak jëwri ni ñu ko àndaloon ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm loolu moo waraloon Cheikh Mamadou Bassir mi nga xam ne mooy ndawul sëriñ bi yor kàddoom loon fi Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëw doon seere jëf ji loolu nag di lu rëy rëy rëy loo xam ne képp ku jëf kon war ngaa war ngaa sant yàlla am nga tawfeex ju rëy rëy loolu daal mooy li nga xam ne moo ñu fi dajale woon kon ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw wa rahmatullah xanaa di dellusiwaat rek di ndokkeelaat eh, ci turu daayira muxadimatul xidma ci turu district sanitaire bu Touba ci turu eh, collectif bi nga xam ne moo dajale pharmaciens yi nekk ci région de Diourbel yëpp ci turu également collectif bi nga xam ne moo dajale structure privée yi nekk ci Touba yëpp. di wax euh, waaye daara Toscana bi jëf ngeen jëf joo xam ne nii andi ngeen ko fu ko soxlawoo jëf ngeen ko tamit fa ko mag nga yaakaar woon ba jëfan ko fa ci jëf ju njëkk ja Serigne Touba mi nga xam ne ni képp ku ko liggéeyal dana la fay yàlla na leen fayal boppam te pay googa yàlla na doon ci yéen lu lu lu fes loo xam ne ni seen moroom yëpp dinañ leen ci ñeel ba lii ngeen def ñu toppandoo leen ci ndax loolu moo doon njariñ ci dëkk bi lii nag na ngeen xam ne toujours ñu ngi leen ci tàllal loxo ndax saa bu ñëwee dina am njëriñ mhm. fii jumaa ji yàlla dugal na fi lu fi dugg lu ne mhm. dana dem fa mu war a dem mhm. les ci fi soxla woo mën ko na ko jariñoo la ca des dinañ ko yóbbu ci nit ñoo xam ne nii sëriñ bi leen waroon boppam ñu dem yóbbu ko taxawul leen ca te loolu incha allah waxtaan naa ci ak waa muqaddimatul xidma fu mu war a allah dana fa àgg mu doon njëriñ boo xam dina nekk ci euh, waa Touba yi nga xam ne moom ngeen ko andil di leen tàllal loxo tamit ci yeneen i liggéey ndax barab bi soxla woon ambulance soxla na ay oto ay ay ay ay voiture de secours yoo xam ne day daw ci biir nga xam ne nii au lieu que biir màggal nit ñi di di di ŋàbb nit ñi di leen tekkati ay ay pousse-pousse am na oto yoo xam ne mën naa daw ci biir jumaa ji xeet yooyu soxla woon nañ ko te yu mel noonu dana jàppandi foofa lépp mu ngi noonu lépp loo xam ne gis ngeen ko ngeen xam ne fa ngeen nekk am na fa njëriñ su ngeen ko andi fii dana fi am ngeen ko andi fii dana ko dugal ñaan nañu ñaan borom it li ngeen xam def ngeen ko ngeen sonn ko ci ngeen dajeek ngërëmam ndax ngërëmul yàlla moom la yàlla moom la ñëpp doon ba ñëw fii fekk sëñ Touba ko borom boole jox ñun ñëpp ak sëñ Touba jërëjëf. In questa occasione che ci ritroviamo qua alla Grande Moschea di Tuva, vogliamo porgere dei ringraziamenti alla Sua Eccellenza Arcivescovo di Firenze e a tutti coloro che hanno partecipato a questa collaborazione per apportare questi medicinali che hanno il valore di 250.000 euro convertiti in franco francesi sono più di milioni eh, di questi soldi qua. Siamo molto lieti di ricevere questi medicinali che con queste, quest, questi prodotti possiamo aiutare tutta la comunità di questi intorni e tutti gli ospedali che sono qui in zona. Vogliamo ringraziarvi e farvi sapere che siamo molto lieti di, vostra, eh, di questo inizio, di questo bell'inizio che avete fatto. Vi ringraziamo molto. Euh, nous avons euh, aujourd'hui le plaisir de recevoir un euh, don de médicaments et d'équipements venant de Toscane, un daïre qui est en Italie, qui, ont bien voulu aujourd'hui remettre au nom du Khalif général des Mousseri Muntaha Mbake un don de médicaments pour l'infirmerie qui se trouve au niveau de la grande mosquée de Touba. Ces médicaments sont venus à son heure. Parce que, comme vous le savez, la grande mosquée de Touba est l'un des euh, euh des, des, des, des, structures au niveau de la ville sainte de Touba qui accueille le plus de monde durant tout, le, tout, tout, tout au long de l'année. Donc euh, tous les vendredis, les gens se rassemblent ici pour euh, euh, l'heure de prière à, à 14h, le, le, jour du vendredi. Mais en dehors également de ces, de ces jours de vendredi-là, c'est des lieux de culte qui rassemble beaucoup de gens à, chaque fois qu'il y a un magal ou bien une organisation telle que les journées de Khassaïd et autres. Là. Et les gens qui sont là, ils peuvent être confrontés à des problèmes de santé à n'importe quelle heure de la journée. Et l'infirmerie est là pour répondre à ce besoin. Donc, euh, bien que les districts sanitaires, à, à, travers leur collaboration avec l'association des pharmaciens et des privés de Touba, sont en train de faire un excellent travail, mais un apport venant d'ailleurs, consolidant le stock de médicaments et d'équipements existant ne peut qu'être accueilli à bras ouverts. Et nous pour vous remercier au nom de Moukhademoudou que nous représentons ici. Nous sommes membres de la DAERE et également au nom du district sanitaire également, dont nous sommes membres parce que nous sommes prestataires au niveau de la, zone. Donc euh, nous vous remercions et nous vous réitérons davantage notre collaboration. Certes, Ibrahima Dieng a fait un, acte très considérable consistant à envoyer un lot de médicaments assez considérable qu'il a eu à recueillir à part de ses partenaires, mais également nous vous exhortons à faire davantage. Parce que ici c'est un qui fait partie des dernières recommandations de Cheikhoul Khadim. Et il avait dit que chaque personne qui, euh, qui, qui, qui, va se, se, se montrer dans ce travail-là ne sera jamais éteint le long de sa vie. Donc soyez davantage conséquents par rapport à cet objectif-là, essayez de faire davantage. Nous avons besoin de, de, de, de, de voitures motorisées pouvant circuler à l'intérieur pour l'évacuation des malades. Nous avons besoin d'ambulances, nous avons besoin également de lits. Nous avons besoin également de chariots. Donc tout ce que vous trouverez de bon pouvant être amené à Touba, consolidant l'existant au niveau de l'infirmerie, sera accueilli à bras ouverts et nous vous en remercions. Merci beaucoup. wa rahmatullah bokk talibé ñu ngi leen di siyaar bu baax ndongali Ibrahima Sey la ñu ngi jottale nuyoo ak siyaar waa ci waa daayira Moukhaddamatoul Khidma yëpp di rafetlu teewaay bi di am mbégte bu baax a baax ci bis bi di sant yàlla bu baax a baax a baax di yàlla suñu borom gën kattanal ba lépp lu ñuy yéene lépp suñu borom mottali ko ñu ngi sant yàlla bu baax na mën nag cant gi faaw mu am ñu ma cité ndax te wax dëgg yàlla liggéey bi tey bu amee gannaaw yàlla ak sëñ Abdoulaye Thierno mii la ndax da ciy def ay démarches yu am solo solo solo di ñaan yàlla rek relation loolu démarches yooyu ñaan yàlla suñ borom gën ko dëgënal ba mu gën a continuer ndax ñun dañ ko soxla ndax ñun ñu ne ci àll bi tey eh, am na loo xamante ni mënuñu koo xam wala foo xam ne mënuñu fa àgg mais am na bu ñu amee ñi nga xamante ni ñoom ay jëwriñ la rek suñu gungee ñu dem di sant yàlla di woo nag waa Toscana ci sama tur ci daa ci tur mu ma Moukhaddamatoul Khidma bi di ci jiital jëwriñ yi too jëwriñ yi sama ginnaaw nii euh, sëñ Maas ak ñi mu jëwriñ yi Toscana yëpp di wax ne daayira bi ñun ay ndaw lan ñaan yàlla dañoo bëgg tam jëwriñ yi ñu jàppale ñu ci liggéey bi ndax ñun amuñu lu dul bi tey gi na wax dëgg yàlla xaw nañ fa néew doole lool di ñaan yàlla ñëpp ñu ñu jàppale ñu di sant yàlla Ibrahima Dieng itam ñu ngi koy sant baax a baax ndax wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na yéen a ji man wér na ma ne paase na fii paase na fii di ñaan yàlla lii mu doon ab commencé rek mu doon ab commencé di ñaan yàlla yéen ñi nga xamante ni yéen ñi ci kaw itam ngeen jàppale ñu ci bu baax a baax a baax baax di sant yàlla ñi nga xamante ni tey ñoom laa àndal foofu liggéey bi muy sëñ Xaali Jaañ Baye Lan Jaay Papa Ñang ak waa Pontedera waa Santa Croce ñëpp maa ngi ak waa Livorno ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen xamal ne que liggéey bi agsi na jébal nañ ko sëñ bi ñaan yàlla sëñ bi fayal ñu ko ci bak Seexna Xadim asalaam waa tout temps tout temps yi tuskaan tam ñu ngi leen so soñu yàlla def na tey sañ góor a même teew na fi ñaan yàlla bu ñu delloo ak jàmm rek ñu xam ne liggéey bi moom nii la demee waaw ñu xool ni ñu ko gën a yaatal rek su ko defee ñu ànd ko ak ñoom waaw ñi ci tàll loxo ñëpp nag ndax liggéey jumaa ji moom amul fu mu yem te li ñu yéene ak li ñu bëgg lépp su fekkee ne loolu la ñu bëgg moom amul fu mu ah, ku ñëw rek ñu ànd ko ak yow ku ñëw rek ñu ànd ko ak ñu ngi ci woo ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah